kenn xamul lii lan la dëkk boo xam ne dafa tàng buñ nee nii rek gone gi saar génn gone gi saar lii baa sa jàmm yaram laa oh démb li ma def si digg dëkk bi dëbb ko ba mu nooy man ak champion d'Afrique bu mag bi gone gi saar nga génnati naan ruux nañ ma yuut nañ ma gall nañ ma yow may ñu jàmm tu ñu fiché what the fuck man lan mooy bëgg a jolle man togal bañu ñu la nga dem gérer say problème yak ñi ñuy commencé tànkal dañuy vacances dafa tàng salu ñuy bogo may ñu may ñu suñu xel yi tranquille yaa ngi dox ci suñu xel yi dañu sonu ko ne gi sar may ñu jamm Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nek di wote combat bu man ak yow la yow nga ne yewi askan bi Ousmane yewi ma bala nga yewu kenen après ñu àndaloo man ak yow yewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan li nga yeewi askan ci li nek di ante passé nga yeewi askan bi ci li nga xamantene ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 dom ci lañ dee ñu mëna xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a en paix yàlla leen yalla xare aljanna Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bayyi nga ne kenn du la tëj ça on verra que vous yow le président de la république faites que justice justice Sénégal yow la que dicté justice Sénégal ça on le verra la tête. Bo bo da ngay dem suite bon violé def lu vous ay yu ne la on verra Ousmane Sonko ne la tête, on verra.